jullit ñëpp nag waaye kunta am ci li nga xam ni moom mooy cëram moom mooy meññi yenent bi sallallahu alayhi wa moo tax cheikh bu Mouhamed kunta donn sunna soosu ci ay maamam di ko def ci bisub juróom bi di ko defee nag ci sunna seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa di ko defee ca na nga xam ni noonu la ko yenent bi daan defee ci bisub altina ya mu daan woor di ko defee ci ni nga xam ni mooy dundal alquran ci bis bi dundal zikrullahi ci guddi gi bernde te itam def ay jotaayu xam-xam ak ay jotaayu tagg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sëriñ bi mu ngi woote ci képp kuy ñëw njaasaan xam ni bis la boo xam ni bisub sunna la ndax thème bi moom mooy manhaju tarbiya wa taalim li cheikh bu Mouhamed Kunta cheikh bu Mouhamed Kunta nan la def ba réussir li nga xam ni moom mooy ndono maamam sallallahu alayhi wa sallam